léegi nag balaa ñu dem ci daabo dama fay jot benn xibaar léegi di ki nga xam ne mooy kilifa gi Alaaji Cerno Njaay moom ci boppam dafa yëg cool yi ba àjjuma ci boppam moom day dox taxu jàmm am na nag loo xam ne balaa ñu dem ci dara ba léegi ñu woo suñu papa alaaji Cerno Ndiaye mu am témoignage boo xam ne da ko fas yéene def jëm ci lii nga xam ne mooy imam bi war a fas yéene def ci jàkk mosko bii te El Hadj Abou nekk premier pèlerin 2005 premier jeune pèlerin animateur 2005 la demoon màkk ba 2015 10 ans la moom nag jàng na sama xam-xam nee na xam na ma ci zahir xam na ci baatin moo tax mu fas yéene ñëw tey moom alaaji Cerno Ndiaye daa dee dëggal li nga xam ne moom mooy imam bi ne El Hadj Bilal samp nañ ko te samp boobu moom nañu xaar alaaji na Njaay waaw waaw xaadir mag baa ngi ni de allahu akbar ambassadeur cheikh na cheikh Sadibou mooy alaaji na Njaay ba ñu demee Mauritanie am nañ ci firnde yu leer nañ monsieur l'ambassadeur ah waaw gànnaar la jóge gànnaar la jóge astu caam waaw bu islim. waaw. di jigéenu Youssou Ndour di rakk Samba Mbaw. waaw. banque. waaw mondial waaw. wax ni. waaw. samp mag moo gën a wóor. ndax samp mag gone du ko dindi. waaw. kër gi doyloo nañ la. waaw. teg nañ la ci kanam. waaw. yaay imaam raati bu kër gi. waaw imaam ñu jàkkee nag ci biir kër gi mën na nekk waaye imaamu jumaa waaw nee na yow la teg kenn mënu ci lenn. man ko lu tax mun ma àddina ñoo d'accord. moo tax moom ci boppam. waaw mu ni ñii daal la lay defal. waaw wan ni imaam bi yow la. <laughs> <laughs> allahu akbar bàyyi leen daanu leer bàyyi leen daanu leer waaw jërëjëf jërëjëf. su caa muslim tungu ne du teew ñuy nataal. imaam. imam kii du man Kouthia yow lan loo la xam ci fulla ci fayda ci dox loo xamante dafa dëgg neex yàlla ana imam jigéen di fecc di selfie image yaa ngi ni nga naan ni man yow man da nga man man man da nga kii du man kii du man Pa Thierno Ndiaye xam na lu ma wax ndànk yàlla lu mu bind séeri la <laughs> dangay dem ba Màkka daje fa ak nit mbaa nga dem ba Touba daj fa ak nit nit kii yow mën di gis naa la Touba te fekk génnul biir këram waaw copie conforme. waaw bu fekkee ni doomu aadamaa ko mën. waaw rawante ne yàlla. yàlla allah allah day bind ay série kii da doon toroxal seytaane. waaw kay jërëjëf te yow làngoog lenn ak seytaane. jërëjëf jërëjëf. yaay imaam ratib maay imaam ratib. maay imaam ratib. doo imaam maay imaam ratib. maa ngi fa woon. maay imaam ratib. yow papa image yaa ngi image yi lu ne ngeen di def. waaye falsifié di def lu nekk. du moom tey du moom ëllëg. déedéet kaay kaay yaay imam. maay imam. xaaral imam maay imam. maay imam. mooy imam maay imam. léegi nañ wax ci falsifié. ki doon daw ci télé bi. kan bi yëfi ne bëm ba ñu wane Mado dañ ko falsifié. Mado ne ko foon. ah kon dañ ko falsifié doon daw kon mooy imam. kuy imam. yaay imam. kuy imam. yaay imam. kuy imam. yaay imam. kuy imam. yaay imam. kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam kuy imam